asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, monsieur le ministre xam naa ni sa pexe bu sotti woon doo ñu fekk fii parce que envoyé woon nga fi benn article 87 boo xam ne sa yéene moo doon jël ñu euh, def ñu offrande pour un X qui va remplacer Macky Sall yàlla dogal na tey sa pexe sottiwul moo tax nga toog mais sa yéene moo doon député yi toog fii nga takk leen fatang leen jël leen jébbal leen benn x boo xam ne nee nga ñëwagul parce que jàpp nga ni député yi jàpp nga ni yow député yi war nañ leen mu def ay offrande parce que quand tu le président voulait offrir à son successeur la possibilité de de non mais c'est c'est grave quoi c'est très grave ça je ne peux même dire quoi de dissoudre cette assemblée qui est une institution sa montre que toutes les fois que j'ai été ici pour dire que vous êtes des démolisseurs des institutions, ça se répète. Et de professeur de droit constitutionnel à démolisseur des institutions du pays, ça vous pas. En décidant de nous envoyer le projet, ce projet de loi avec l'article 87, vous avez décidé vous avez décidé euh, d'attenter à la stabilité de l'Assemblée nationale. Donc je considère votre tentative comme un attentat avorté. Et comme, comme, les attentats sont attribués à des terroristes, je considère que vous êtes un terroriste constitutionnel. Fabricant de charge contre d'honnêtes citoyens par le biais de vos procureurs, vous êtes devenu un danger pour le Sénégal, pour la stabilité de ce pays. Séquestration, enlèvement, barricade de Sonko, impunité. C'est ça votre travail, depuis que vous êtes La justice est à terre à cause de vos manipulations. Le dialogue, ce dialogue qui a produit l'article 29, ngeen nekk fii di gëmloo Sénégalais nii da ngeen di wàññi ay nombre wàññiwu leen ay nombre pourcentage ngeen def man du ma voté loi boo xamee ni bi nii saa yu nombre électeurs yi yokkoo Sénégal ñu demande la lacte du mës a nekk un brouillon on refusera que notre constitution soit un brouillon et on vous dit ne touche pas à notre constitution il faut arrêter de toucher aux constitutions c'est vous qui le disiez si vous touchez à la constitution je vous déloge du palais vous avez ce mot maintenant il faut le gérer l'autre aspect aujourd'hui xale yi ñi ngi dem Barça wala Barça ñi ngi dee wootewu leen ñoru leen ñi ngi rey fii ay xale par rapport à votre décision de justice boo xamee ne bi nii tuumaal ngeen nit lu mat ñaari at waxal ko lu lu tëgg lu mat ñaari at ñu setal ko ngeen créer ak yéen yéen yéen pas les juges yéen ak seeni procureur ngeen dem créer beneen lu kenn xamul lu muy nuru soxoraat la yamoon ñëw taxal ko nit kon yéen yéenay problème Sénégal et ça il faut l'arrêter parce que ça passera pas leneen li mooy euh, article bi sénégalais li ma leen bëgg a wax mooy sélection la maanaam ñëwoon na fi lu mu fi produire mooy éliminer na vingt cinq candidats fii ci biir Sénégal nan lañ mun a accepté waatee mu war a éliminer waat yeneen trente wala quarante soo leen ko nangoo mooy ëllëg bu ñii nga xamante bi nii toog ci nguur gi dee ci moo leen ko gënal taxawee ba ne dañ koy dugalaat bu ñu éliminer waatee quarante bu ko kenn wax et puis touche pas à notre constitution parce que lu ñu leen bàyyi ngeen jël constitution bi di ko def comme brouillon saa yu nombre bi yéegee ngeen woowaat caxat caxatee il faut arrêter de toucher à cette constitution leneen li ma bëggoon jeexal bëriwul mooy juste que su fekkee ni dañoo jàpp ni dañoo war a def parenage ngeen créé beneen filtre seen filtre bi njëkk mooy léegi la dialogue le dialogue ay devenu le premier filtre il faut pas que ñu nax ñu léegi soo bëggee bokk da ngay dem saraxu ji président bi toog ci wetam mu def filtre bu njëkk ci wax joo xam ne teguwul fenn jeu di l'Assemblée nationale est par essence l'espace de dialogue politique feneen foo leen ko def da ngeen a def lu dul dëgg da ngeen def lu nekkul yoon parce que tôt ou tard fee ngeen ñëwaat parce que la ngeen waxoon dara mënu cee jàll tey suñ ko voté wul donc cette majorité là ngeen yoon yaakaar ni mu ne leen yóbbu fu sori da ngeen ni nësaxal réew mi Ousmane Sonko day bokk Ousmane Sonko day bokk Ousmane Sonko day bokk mu lay neex di la naqari day bokk incha allah merci beaucoup. La parole est à notre collègue euh, Sokhna Ba. Après l'intervention, vous aurez la parole. asalaamaaleykum monsieur le ministre ñu ngi leen di nuyu di nuyu seen collaborateurs yi nga xamante ne si yoom ngeen àndal ñun suñu intervention par rapport au projet d'amendement proposé à l'article unique portant révision des dispositions de l'article 29 de la Constitution euh, réforme la tout d'abord sax avant ñuy ñëw ci projet bi carrément di saluer écoute attentive bi nga amoon keroog par rapport à la commission ci le sort de notre euh, honorable député euh, le président bi am Birame lay Diop euh, projet bi nag man dafa am loo xamante ne si dama ko daf ma ci jaaxal parce que bu ñu nee dañuy def parrainage te wax ne parrainage bi ça existait déjà ci code bi euh, parenage bi am nombre boo xamante ne si daf ko waxoon maximum 1 pour cent 0,8 minimum maximum 1 pour cent ci fichier électoral bi ñu ne réforme bi nga xamante ne si moom ngeen indi dafa wax ne. taux bi dañ ko baissé mais man baisse bi ba léegi dama jàpp ne est-ce que il s'agit réellement d'une baisse d'autant plus que da ngeen ne six zéro virgule six pour cent la minimum bi maximum bi nekk zéro virgule huit mais bu dee ne da koy appliquer da koy appliquer par rapport au fichier électoral c'est-à-dire le fichier général te fichier bi on sait on sait bien que chaque année fichier bi dafay yokk kon fichier bu yokkee ñu appliquer ko au de zéro virgule six pour cent est-ce que dina am impact bi nga xamante ne si moom ngeen wax muy impact réduction bi beneen bi ba léegi ci pare parrainage citoyen bi pare parrainage citoyen lañ wax citoyen bu nekk am nga droit ne benn candidature mais li ñu waxoon keroog mooy te dañ koy réitérer dañu jàpp ne loolu dafay violer li nga xamante ne si moom mooy secret de vote bi parce que booy pare ne kenn ki nga ne ci pièces yi nga xamante ne si dafa war a accompagner dossier de candidature bi dafa am euh, liste des parrains te liste boobu a priori dañuy jàpp ne administration bi dinañu am en de ki nga candidat bi nga xamante ne si moom mooy dem à am ñu ko parrainé dinañ xam exactement ñii ñoom ñoo ko war a voter moo tax ñu jàpp ne war nañu mën a ouvrir une brèche c'est-à-dire permettre aux citoyens de pouvoir parrainer deux au minimum deux deux candidatures beneen bi nga xamante ne si moom laay wax mu dellu ci parrainage optionnel bi parrainage optionnel bi mooy parenage bi nga xamante ne si dañu wax ne ñi nga xam ne ay élus lañ am nañ droit parrainer euh, candi euh, euh, benn candidature mais parenage boobu man dama jàpp ne reflété wut li nga xamante ne si moom mooy aspect géographique bi reflété wut li nga xamante ne si moom mooy aspect territorial bi parce que bu dee ne da jël député yi député yi nga ne 8 pour cent la 8 pour cent ci député est-ce que dina jël coloration boo xamante ne si di nga ne kii Kaolack la dëkk kii Saint-Louis la dëkk kii Ziguinchor la dëkk kii Kaffrine la dëkk pour jël li nga xamante ne si moom mooy volet territorial boobu. beneen bi nga xamante ne si moom laay wax te ma dugaloon ko ci ñi nga xamante ne si moom mooy élus yi les chefs d'exécution territoriale chef d'exécution territoriale yi dañ ne maire la d'exécutif territorial du moins dañ ne maire la président conseil départemental. mais foofu dangay man li ma jàpp mooy parce que boo nee chef de brigade chef d' exécution la ci li ma yaakaar boo nee chef d' établissement public chef d' exécutif territorial la aussi est ce que jaaduwul woon ci biir loi bi ñu def loo xamante ne si dañuy préciser wax ne chef d' exécutif territorial euh, maire la président conseil départemental la bu ko defee nga xamante ne si ñi nga xam ne ay adjoint au maire lañ ñi nga xam ne ay conseiller lañ dinañ xam ne ñoom aussi cette loi les concerne pas ci loolu moo tax ma jàpp ne ci parrainage des élus yi war nañu ko def en corrélation avec les départements ou bien avec les régions par exemple bu ñu waxee ne euh, candidature bi ay élus dañu koy ne ñu ne élus yooyu au minimum mënoo am dix signatures ci li nga xamante ne si moom mooy circonscription administrative bi pour mën a permettre euh, candidat bi mu am une légitimité ci candidature yooyu nag foofu laay jeexalee parce que réforme bi certes nit ñi nee nañ am na ñu ne baax na mais une candidature à l'élection présidentielle moi je trouve que c'est quelque chose de très sérieux pour que ñu war ko mën a utal ay mécanismes à l'instant on va vers 2024 on a combien de candidatures combien de déclarations de candidature c'est parce que ñu bëgg nañ soit parce que réalisme am na xam nañ ne duñu jàll peut-être bëgg nañ ci seeni CV ñu bindal leen ne diw a été candidat ou bien candidate à la présidentielle moo tax xaw ma ban mécanisme ngeen di teg yéen ñi nga xamante ne si yéen a yor administration bi yéen yor gouvernement bi ay mécanismes yoo xam ne sa va permettre aux citoyens ñu xam ne le fait de tenter euh, ou bien de vouloir briguer le suffrage des Sénégalais c'est quelque chose de sérieux ñu wutal ko ay mécanismes je vous remercie. merci chers collègues euh, Guy Marius Sagna vous avez la parole pour une motion préjudicielle. Euh, jërëjëf dama am euh, proposition euh, de motion préjudicielle tendant à l'ajournement du débat portant sur le projet de loi numéro 10-2023 portant révision de la Constitution jusqu'à la réalisation de certaines conditions fi ma teg nag sama proposition de motion préjudicielle tendant à l'ajournement du débat maa ngi ko teg ci article 75 article 75 à tout moment au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à de certaines conditions. Euh, mbokk yi le retrait de l'article 87 de la loi constitutionnelle entraîne le rejet de l'ensemble du projet de loi. En des motifs fait partie intégrante de la loi et celui-ci doit en même temps que la disposition concernée. Aussi, l'amendement de l'exposé des motifs est impossible. Nous voyons déjà que nous sommes passés d'un exposé de motifs de 31 lignes à un exposé des motifs de 26 lignes. Nous passons d'un projet intitulé Projet de loi portant révision de la Constitution à projet d'amendement du projet, un projet qui projet qui projet. Rien que cela montre que, effectivement, Monsieur le ministre de la Justice il est passé de professeur à effectivement nervi constitutionnel, comme je l'avais appelé. Parce qu'il sait, il sait effectivement qu'en changeant l'exposé des motifs, ça doit nécessairement entraîner le retrait de toute la loi. Et effectivement, Aïb, mon collègue président Aïb Dafé le rappelait tout à l'heure, dans la décision du Conseil constitutionnel euh, relative en fait au 5C 2023 du 12 juillet 2023, le Conseil constitutionnel disait, je cite, considérant que les dispositions des articles 79, 80 et 81 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui régissent l'exercice du droit d'amendement circonscrivent celui-ci aux articles du projet ou la proposition de loi en discussion et ne peuvent être l'exposé des motifs. Considérant 18, cela montre clairement qu'il ne peut pas y avoir différence entre l'exposé des motifs le projet de loi. En vertu de l'article 92 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent au pouvoir public à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par ailleurs, l'article 5 de la loi organique numéro 2002-20 du 15 mai 2002 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale précise la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser 15 jours, sauf dans le cas prévu à l'article 68 de la Constitution. Cet ordre du jour ne modifié Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé. Le retrait de l'article 87, consécutif à une décision du gouvernement, provoque ainsi une modification de l'ordre du jour générée par une disharmonie générale du texte. Les conditions de discussion du texte n'étant pas réunies pour les députés, il y a lieu de sursoir à des projets de loi inscrits à l'ordre du jour jusqu'à nouvel de motion est d'autant plus que le gouvernement n'a pas motivé l'urgence conformément aux dispositions de l'article 60, alinéa 2 de la loi organique numéro 2002-20 du 15 mai 2002 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aussi, le risque du manque d'intelligibilité de la loi n'est pas non plus à négliger. Par conséquent, il y a lieu de sursoir à l'examen des lois inscrites à l'ordre du jour jusqu'à une date ultérieure fixée par la conférence des présidents Ousmane Sonko da ngay bokk mënu leen ci dara day bokk bu ngeen buggee jàmm nag Ousmane Sonko day bokk waaye nag mënuñu nangu loo xam ne da ngeen di téye 700 détenus politiques en prison vous vous taisez sur les victimes tuées disparues assassinées blessées par le régime de Macky Sall ngeen bëgg ngeen bëgg liquider la candidature politique de Ousmane Sonko jàpp ne jàmm dina am jàpp ne dina jàll du jàll du jàll tey du jàll ëllëg Ousmane Sonko day bokk mu neex leen mu naqari leen Ousmane Sonko day bokk bu ngeen buggee jàmm bu ngeen buggee jàmm bàyyi leen Ousmane Sonko mu bokk bu ngeen buggee jàmm bàyyi leen Ousmane Sonko mu bokk te day bokk Macky Sall boo buggee li la dese ci juróom-ñaari weer yi nga jeexal ko ci jàmm ak salaam il faut arrêter la liquidation des candidats des candidats à l'élection présidentielle Ousmane Sonko day bokk mu neex leen mu naxari leen day bokk seen xol di métti day bokk ngeen complot day bokk bokk lu ngeen munti def Ousmane Sonko day bokk et je lance un appel à tous les à tous les patriotes mobilisez-vous Le président Abdoumba, vous avez la parole. Le président de la commission Abdoumba, vous avez la parole. Vous avez la parole. Le président de la commission. Merci. Euh, merci.